ñuy def li ñu def dimanche bu boo sax am ci ku doon song ak ku ñàkkula song ak yooyu yëpp mais li ñu def dimanche man mënuma ko mënuma ko teg yëfu champion te loolu su amee man li may proposer mooy que tey mari yi ñu desee leen par exemple ku ci vingt millions jar nañu dagg dix millions yi delloo promoteur yi dix millions yi ci dagg ci ay sanction ay sanction pécuniaire ci euh, avertissement yeeg dégâts yi ñu def ci laam jala ca des ñu jox leen parce que loolu loolu mooy yoon parce que mënoo toog ñu fay lay dizaine de millions nga def lu la neex pare ñu jox la sa xaalis def nga dem. Hmm. man nag mënuma koo téye parce que xaalis bi moom bien avant may tëgg tëgg am euh, bis bi jot yóbbu naa ko CNG ba nu téye ko mais CNG ñoo war a def règlement boo xam ne pour sauver euh, amateurs yi sauver promoteurs yi parce que loolu su ko defee mu wóor la ni am na façon comportement boo xam ne soo ko defee ci làmb da nga perte dix millions wala vingt millions. soo fay woon cinquante million mën ngaa perte soo fay woon cent millions man ngaa perte presque vingt cinq millions ci reliquat yi doo da nga bëri. Hmm. jël dana am tricherie doom mais est-ce que ci wàllu euh, règlement bi grand wu ni waruñ ko gën a mën a organiser moo gën a am Pastef ba nga xam ni kenn du taxaw di seetaan faw songoo am faaw dóorante am ginaaw bëree dóor la. loolu lépp war naa mën a nekk parce que CNG bi ci boppam. ñoom ñooy ñoom mu amee boobu liggéey. kooku man promoteur rek la CNG moom a yilif moo yilif mbër yi moo yilif règle moom mooy defar règlement yi moo koy soppi. mais xalaat parce que li nga doon promoteur justement war na tax. waaw waaw naka noonu bi. waaw mais xalaat bi ma ci moo tax ma wax la proposition bi ma jëkk wax ni dagg genn wàllu cachet bi. au delà dagg bi. waaw sur le plan purement sportif. lan lañ mën a war a organiser waatee combat yi xam nga mbër xam nga mbërum làmb moom xaalis rek la gëm gëmul leneen. purement sportif soo ko mënoo ko ay suspension ay yooyu yëpp xaalis bi la gëm la Alioune Sarr daan wax président Alioune Sarr loolu tax ñu indi woon fi ay dagg minute dix mille parce que soo ma saan a tardé ñu ni minute mille francs mën ngaa tardé trente minutes muy trente. muy trente mais mais mais mais waroo wax xaalis la ñu gëm yow muy tëgg itam xaalis nga bëgg. dama gëm xaalis mais dama koy teg ci yoon. waaw xaalis laa gëm ku gëmul xaalis amul yéen ñëpp xaalis ngeen gëm ku gëmul xaalis amul. kon bu leen xas yaa ngi liggéey seen seen kaw non man liggéeyu 30 ans yi ne yaa ngi liggéey ci kaw mbër yi man liggéeyuma ci ginnaaw kenn su fekkee ni coow rek jël ay risque risque euh, ba 2021 mhm. ngay waxi perte ak waxi non ba ñu doonee tout tànk ba dama perte dama perte boo doon perte doo xam nga yàgg naa wax ni làmb ndo euh, nattu yàlla li muy li muy nattoo nit mu dugg ci sàngara di naan rek du neex tey mbokk du neex dara wala ngay drogué wu xam nga du neex kenn. loolu moom gëmuñu ko. waaw su la neexee nga bañ koo ah. gëm mais man gëm naa ko man man mi nga xam ni kenn saxaluma suukar pour may wax làmb ji maa ci dugal sama bopp yàlla nattu moo ma dugg ci li ma ci pertin maa ci maa ko xam li ma yaakaar ni dinaa ko ci gañe it maa ko ma euh, mën naa am sama yaakaar su ma sañoon du ma perte su ma sañoon damay organiser di gañe mbëri di ci am mbëri sax di gën a yokku mais làmb. bërki démb làmb ji fees na del làmb ji fees na del kenn jaayuma 40 millions. waaw mais parce que naa lu euh, presque 200 benn bi da nga amoon droit jaay. mais dama ni. Hmm? waaye làmb ji dekk nekk na presque 200 millions budget bi jaayuma 40 millions c'est bien vrai samay relations humaines nag ku nekk yaa am nag say relations humaines muy yéen ñi am am na nu ngeen di tojee seen bopp a am naa samay relation ay relation yoo xam ni. tey man euh, bu yóbboo ñu càpp xam naa nit ñi sponsor yi xam naa leen dañu may jox léegi man ba may fay mbëri cent millions sponsor moo ma daan jox xaalis bu bari ma séddalewaat ko mbëri parce que man moomu mu ko mbëri ko moom ñooy bëri noonu laa ko tege woon pa amoon esprit de solidarité de partage mais ma def loolu damay jël sama wàll ba pare soog leen. toujours loolu ngay wax. ma ne la su doon démb toujours loolu ngay wax. moom laa ko nay wax. say am di jàmb ñoo lay jël di la jox xaalis comme saa ngay organiser noonu la. da nga ni am ngay relation. waaw ci relation. mais joxunu ma xaalis mayunu ma ko. Hmm. ci seen budget de communication lañ koy jëlee. làmb c'est un facteur de communication un facteur de stabilité un facteur de communication y a pas meilleur facteur de communication que làmb fi ñu toll. tey football bi en Europe partout dans le monde. sport moom mooy sport eh, moo moo amee presque communique. xam naa lam marketing produit yëpp lam bi démb ngay wax pas lam bi tey. non lam ci li ngay wax nii naan facteur de nangam. waaw waaw non facteur facteur de développement facteur de stabilité. développement am na ni réew mi gi moom. nañ ci waxtaan ci kanam. Ah, waaw ah. facteur de développement bi xam mën nga ñu ci waxtaan. léegi ca kanam ca kanam ca kanam d'accord ca kanam. Ah. facteur de stabilité parce que tey soo gisoon li xew ci réew mi nga xam ni léegi ku euh, nekk lu la neex wax. kenn amatul discipline ku nekk lu la neex wax ku mu tu la neex ngeen rangale fii seen plateau bi def ci teg fi ay donneur de ku ci nekk yi wax lu neex di jaay ni ay intellectuel lañu suñu dàq gën leen a nekk intellectuel fukki yoon ak juróom suñu doom yi dàq leen a jàng gën leen a nekk intellectuel ngeen nekk yow moom doo intellectuel waaw waaw d'accord mais kon ma am doom yoo xam ne ñu leen gën a nekk intellectuel dàq leen a jàng ah. ëpp leen bagage ngeen nekk mel ni ay donneur de leçon lu leen neex wax ku leen neex xas xas président xas ministre xas ku leen neex ngeen xas ko xas juge xas policier xas armée lu leen neex ngeen def ba indi fi loo xam ni dégg nga maam tey kenn mujj na bi làmb ji taxawee kenn seeraanatul làmb lu leen neex lu leen neex ngeen invité teg nit ñi ñuy def lu leen neex. di xaste bëgg a taal réew mi ci ñi bëgg a taal réew mi kenn amu ci kër goo taal da jàpp ne làmb ji moo dalal réew mi fi ñu toll waaw fi ñu toll ñi sonn may ragal nga juuma ah. leen man juumuma man du ma naa feq juumuma naa feq rek ay wax ni damaa man juumuma du ma naa feq li fi xewoon bërki démb ca fan yële euh, tëju bu ëpp la lan la làmb ji mën ci xolu nit ñi yeex ci ni réew mi demee mais mais laaj ko nit ñi nit ñi xam nañ lu làmb ji man ci xolu nit ñi bërki dem nit ñëpp a génn làmb ji toog deux mois ñëpp di ko waxtaane ñëpp xam nañ ni làmb ji ba léegi fi ñu toll malgré li fa xew ci dernier combat bi ba léegi moom la nit ñi waxtaane loolu lu yàlla dogal la yàlla def ci làmb ji la nga naj sa sa combat xawtul nga xañ ko sénégalais yi nit ñi toog naan dañ koy wane duñ ko wane ñi ne Tamba ah, euh, ak ak ak Bunkiling ñoom seen bëgg a gis kombaa combat mënuñ koo gis xam nga Sénégal il faut que am euh, culture wu jënd billet il faut que nit ñi xam am culture fay. mënuñu rek lépp ñu ni gratuit. mënoo wékk làmb ci billet yéen seen télévision yi ngeen. mënoo wékk làmb ci billet seen télévision yi ngeen yor. seen site yi ngeen yor xaalis bu bari ngeen ciy liggéey te waxu leen ko kenn ay vues ngeen di wut di wut euh, nekk ci euh, Google beeg YouTube beeg lépp da ngeen ci gagné xaalis employé sa xamuñu lu ngeen ci gagné nit ñi xamuñu lu ngeen ci gagné ñu bëgg koo jaar ak sama làmb dund leen sama kaw. pendant depuis depuis quatre vingt quatre vingt douze di dund ci sama kaw samay produit yëguma ci dara léegi nag attends <laughs> naan naa nag léegi moo tax ma ubbi sama site ubbi sama lépp di ci jaarale sama làmb mais xam nooy tooy sa bopp ji nax boo ko jaarale woon TFM sa bamba gën a waaye dama ni TFM yàgg naa fay jaarale sama bamba maasewul ah naa ñëpp man sénégalais la su yëpp baax su ma loolu nag mënu leen ni da ngay am péete waaye alal ah. sama alal maa ko moom nag lu may am péete fekkee ne laa yónni moo tax ñu invité pour wax ma loolu tey ñu defante ko man maa moom sama yëf. Mm. man maa moom sama yëf ñëpp laa yemale Youssou Ndour sama nit la sama xarit la mais man lépp ci yoon laa koy teg su ma toogee tey di wut combat ay nitam ak ay kéem di taxaw di fu ma mbër mu may waxaale ci guddi ga ñu def fa ñoom maa woog ñoom ñëpp dem di waxaale samay combat di yàq samay komba ba ma taxawal samay combat di leen jox sama combat duma ko fu ngeen ko teg du ko def man xam naa sama bopp xam naa fi ma bokk aussi am naa sama fulla am naa sama fayda xam nga làmb ju mag jaar ci tele bu